alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilma mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah ñi ngi ñëw uh, ak yéen ci ay jataay yoo xam ne yàggoon nañ ko mbébét waaye léegi la yàlla subhaanahu wa taala def muy soog a jàppandi luñ ci bëggoon waxtaanee mooy benn nettali boo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf ko nettali ci alquran boo xam ni eh, xew-xew bu jàlloon la xew-xew bu jàlloon la ci ni ko yàlla di faral di nettalee ci alquran léeg-léeg dafay nettali ay xew-xew yoo xam ni dafay nekk ne histoire wu benn yonent lay doon directement wala mu nekk lu nekk en rapport ak moom ci xeetam. Euh, xeet boo xam ne xëy na euh, yàlla ci ñoom la ko yabaloon wala ñoo xam ne ci moom lañ euh, askanewoo ci moom la ñuy dellu même sax bu fekkente ne fekk na yonent boobu nekkatu fi léegi yooyu nga xam ne yàlla da koy nettali ci alxuraan boo ko seetloo yëpp du génn diggante gëm yàlla di góorgóorlu ci ngëm yàlla gi di jéem a soobu ci yoon yuy rawale nit ki ci wàllu ngëm yàllaam ak ci diineem wala ñoo xam ne dañoo wedd yàlla nekk fi di défier li nga xamante ne mooy bëgg-bëgg yàlla yi subhaanahu wa taala wala di gàllankoor ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg gëm yàlla jàmm yàlla loolu nekk benn opposition boo xam ne naka jekk confrontation la buy am diggante waa kër dëgg ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nekk waa kër neen naka jekk confrontation boobu dafay am comme na ko suñu borom subhaanahu wa taala di waxee ci quran ci wane ne ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo gëm yàlla di góorgóorlu ci yoon boobu saabu su nekk am na beneen kuréel goo xamante ne ñoom ñoo leen di gàllankoor di jaamaarloo ak di jaamaarloo ak ñoom léegi suñu borom subhaanahu wa taala daf ñuy faral di nettali lu bari ci alquran ci ay xew-xew yoo xamante ne jàlloon na loo xam ne sax xëy na nekkul na ci suñu xeet bii nii lañ koy dund ñun suñu xeetu lislaam mais ci xeet yi jàlloon la léegi suñu borom subhaanahu wa taala nettali benn xew boo xam ne bu doy la mu nettali qisatu asxaabul kahf mu am benn saar boo xam ne yàlla ñoo ñu la ko jagleel ñu la ko tuddee mooy les gens de la caverne mooy ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo demoon dugg ci benn xur mu tuddee ko noonu asxaabul kahf ni alxuraan di nettalee xew-xew yooyu li ci doy waar moo ne boo ko seetloo du dugg ci yenn détails yi du faral di tudd dat yi du ko faral di tudd kañ la xew-xew boobu am du faral di tudd lieu bi nga xam ne fa la xewee léeg-léeg sax du site turu ñi nga xamante ne bi ñoom ñoom ñoo def mbir mi wala ñoom la mbir mi concerné lan moo tax mooy ne alquran nekkul livre histoire parce que dañuy wax ne ak taarix mooy rabtul ahdaasi bi azmaniha mooy xew-xew yi xew fee yi nga xamante ne bi moom mooy réalisé wu nga jël ko delloo ko ci date yi nga xamante ni ci la xewee loolu boo ko defee histoire la. te ba léegi ci loolu ci histoire boobu noon da ciy duggaat aussi booy wax ci histoire da ngay wax tamit ne jamono sàngam mbir sàngam xew na mais bërëb sàngam la xewee alxuraan loolu yitteelu ko li ko yitteel mooy am na lu xewoon mu nettali la ko nettali boo xam ne di nga ci mën a tirer ay leçons moo tax ma doon wax naan laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab maa kaana xadiisan yuftara li muy nettali moom yàlla daf la koy nettali pour nga jële ci ay njàng am loo ci mën a jariñoo ci loo xamante ni xewoon na jàlloon na nga ne ah lii day wax dëgg yàlla ni mu ma ko yàlla nettalee nii am na lu bari lu ma ci mën a jariñoo yàlla subhaanahu wa nettali ne am xasibta an asxaabal kahfi wa raqiimi kaanu min ayatina ajaban dafa ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasalam ko benn question boo xam ne daf koy wanne li xew màgg na loolu rëy na lool ci wàllu euh, asxaabul kahf seen mbir liñ ci nettali seen mbir yéem na nit ñi lool ñu ciy nekk di ci wax mais bul ci yéemu noonu trop ndax bu fekkee de delloo nga ko ci yàlla ne li am lépp ci moom la jóge ci ndogalam la ci mën-mënam la boo ko comparé ak mën-mënu yàlla loolu du dara te loolu lu am solo la ci xew-xew yi xew mooy ne des nit ñi dañu am tendance bu ay kéemtaan amee ay xew-xew amee mu fees seen bopp ñu am ci mën a dégg-dégg boo xam ne daf leen di dépasser jox ko yeneen dimension ba loolu fàtteloo leen ki nga xam ne dëgg-dëgg moom moo amal mbir mi te mooy yàlla lépp lu la jaaxal ci jamono ji jaaxal la ci mbiru nit ñi delloo ko ci yàlla lépp leer boo ko delloowee ci yàlla rek lépp leer ndax yàlla dara të dara tëwu ko yàlla dara tëwul ko dara réyul ci moom bu fekkente nag danga ko yamale ci niveau bi nga xamante ne mooy niveau doomu aadama waaw bu boobaa mën na dem jël yenn proportion yoo xam ne ci yow yu démesuré lay doon yoo xam ne mën na tax nga wax xaabaabal ci moo tax suñu borom subhaanahu wa taala balaa muy dëkkal yonent bi alayhi salaatu salaam ci di ko nettali li xew ak na mu xewee mu njëkk ko wan ne ko li ci nit ñi wax ak fi ko àggale yëpp. boo xamee ne ci yàlla la jóge loolu du la jaaxal moo tax mu ne ko am xasibta anna asxaabal kahfi wa raqimi kaanu min aayaatina mu delloo ko ci boppam moom yàlla ndax dangay jàpp ne liñ lay nettali ci xew-xewu ñooñu nga xam ni ñoo demoon ci xunt ba mu wax asxaabul kahf tuddul seeni tur gaa yi nga xam ne ñooy gaawu xunt ba wa raqimi am na ute ci boroom xam tafsir yi lan mooy ar raqim ñeneen ña raqim moom mooy xur ba nga xamante ni fa la xunt ma nekkoon ñenn ñi ne montagne bi nga xam ne ci la xunt mi nekk ñenn ñi ne dëkk ba nga xam ne fa la jóge ndax war raqiimi ay wa asxaabu raqiimi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy gaawu xunt ba di gaawu ar raqim raqim boobu nag lan la yenn ci salaf dañ ko daan tekkee mooy borom xam yi jiitu woon tàmbale ko ci saxaaba yi wàcc ñenn ñi si ñoom dañ doon wax naan ar raqim kon mooy xur bi wala ñu ne moom mooy montagne bi wala ñu wax ne mooy dëkk bi ñu jóge leneen si ñoom doon wax ne ar mooy alkitaabul marquum fail la bi maanaam mafaul li muy tekki mooy benn téere benn àlluwa boo xam ne dañ ko bindoon dañ ko tegoon bind ci seeni tur ñenn ñi ne ñoom ñoo ko bindoon wax ci seen histoire nettali ko teg ko ci buntu xunt bi am ñu wax ne déedéet bi nga xamante ni dem nañ ci xunt ba amatuñ ci ñoom benn nouvelle ci lañ ko bind denc ko ci fi nga xamante ne fa la ñuy denc lépp lu aju ci wàllu nguur gi seen dëkk bañ dëkkoon am ñu wax ne noono waa dëkk ba xamoon nañ fa nga xam ne fa nekkoon ci xunt ba ndax ci histoire bi dina ñëw ci yenn version ñu nettali ne dañoo kaste woon bunt bi tëj leen ci biir léegi ci lañ binde woon seen histoire teg ko ci bunt bi lu ci mën a am lenn ci borom xam-xam yi loolu la alimaam ibnu jarir tabari gën a dëgëral dañu wax ne mooy kon téere bi nga xam ne arraqim mooy téere bi nga xam ne bindoon nañ ci seeni tur kenn ku nekk diw doomu diw diw doomu diw bañ mat daal di koy jël teg ko euh, denc ko am na tamit ñu wax ne arraqim moom mooy xaj bi turu xaj bi mais euh, loolu taxu koo dëgër trop waaye daal suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ak yonent bi alayhi salaatu wa ci xew-xew boobu nga xam ne mooy xew xewu gaa yooyu demoon dugg ci xunt bi lan moo tax moo ko ciy wax nee nañ parce que yéefari màkka yi bi ñu nekkee ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu leen di woo ci ci ci yàlla di leen woo ci ngëm yàlla di leen woo ci wéetal yàlla ñu koy weddi bépp yoon boo xam ne mën nañ fa jaar pour déstabiliser ko ci wooteem rek dañ ko doon jéem a def te loolu mooy naka jekk luy am ba suñ jamono yi muy piège yi ñu lay piéger di la jéem a pousse ci benn erreur exploité ko pour yàq sa image ci nit ñi waa xool leen ko gis ngeen li mu wax lu tax ngeen koy déglu loolu ça ne veut rien voilà dafa am lu ñu tuddee impeccabilité ak infayibilité yonent bi alayhi dafa infaillible woon donte impeccable woon dafa infaillible woon ndaxte yàlla du ko bàyyi ci njuumte buñ ko laajee dara lu mu xamul. ci lu mu war a xam yàlla da ko koy xamal mu wax leen ko waaye impeccableul ndax doomu aadama la mbindeef la ki impeccable mooy yàlla mooy ne koo xam ne léppam mat na lenn loo xamante ni bii luy njuumte la xalaa xel xalaatul sax muy jóge ci moom yàlla yonente bi alayhi salatu salaam njuumte mën na am ci mbiram ndax loolu mooy tax yàlla ñëw jubbanti ko ne ko bul defee nii defeel nii bu beneen yoonee na nga defee nii kon yàlla du ko saxal mu ko ci njuumte loolu mooy indi ci alxuraan ngay gis yàlla di ko jubbanti naan ko afallahu an kalima idinta lahum mais lépp coobaree yàlla la ngir yàlla wan ñu ko te niteem ci ne mën nañ ko roy kon mën nañoo jànge ci moom te itam loolu muy def noonu yàlla di ko wàññi naan ko defaa ko defee ko nii loolu yëpp ngir suñu njariñ la ñun ngir ñun ñu jëlee ci ay leçon bu sooboon yàlla mu def na du jum benn yoon waaye c'était pour juste yàlla jàngal ñu ci mbiram xamal ñu ne ndakate kon jàngale diine ak nekk ku baax jotewul dara ak juum wala ñàkk a juum kon ñi ni nga xamante ne bi noonu lañ koy defee moo tax léegi gars yi njuumte li ñuy def mooy yaakaar ne buñ la laajee dara nga ne xamuloo ko wala ñu piéger la fenn nga juum ci ci ni nga waxee waroo woon waxee ni nga waxee ni wala yooyu day tekki ne yow li ngay wax kon dara du ci dëgg loolu naka jekk noonu lañ doon def ak yonant yi rawatina yonant bi alayhi salaatu wa salaam jaar nañ ko fa question bu ne nañ ko ko bu ñu ko posé question mu yéex a tontu sax ñuy wër di yàq deram di wax ne gis ngeen ko mi ngi nii li mu doon wax fii naan lii xam na ko nangam sàngam mi ngi nii laaj nañ ko nangam xamu ko te loolu lañ ci doon jublu yabal ay nit ñu dem ba Madina dem Yasrib laaj ji kàngaami yahud ya fa nekk ay question yoo xamante ni bu leen ko waxee bu ñu jël see màkk laaj ko ko du ko mën a tontu léegi loolu lan lañ ci jublu liñ ci jublu rek mooy lottuloo ko ci tontu loolu boo ko mënta tontu ñu yuuxu ci biir màkk ne waa gis ngeen ma ngoog ñu doon wax a ngoog mooy stratégie bu sew yooyu nga xam ne ñi noonu sa woote bi ngay woote ci dëgg saa su nekk dañ koy tëral duñ dugg ak yow ci wàllu xam-xam dugg ak yow ci tegtal yi nga xam ne moom la nit ki mën a sukkandiku ngir àgg ci dëgg jàngat ko ak yow pour xam yow miy wax ak ñoom ñiy wax kan moo nekk ci dëgg déedéet dañ ko fi bàyyi na kupp ndax xam nañ ne du seen avantage loolu buñ ci duggee duñu sori léegi li ñuy def mooy nekk ci yow ci say tànk ci say jéego di jeqi ak di xool ak di la jiitu di la gasal ay pax di la ci jéem a nërmel ak di sànni ay bant pour nga faqastalu ci yooyu ci la ñuy dox loolu lañ def yonent bi alayhi salatu ñu laaj ñu ne leen bu ngeen demee laaj leen ko ñetti laaj laaj leen ko ruux mooy lan laaj leen ko nit kooku nga xam ne ku yàlla joxoon cër la jox ko mën-mën mu dox ci kaw suuf def ay jaleero yu mag di xar xarnay ni li keneen ki ci des mooy ay xale yoo xam ne dañoo dawoon dugg ci benn xuntu yàlla faat leen fa ñu def ay ati at laaj leen ko tamit xale yooyu seen mbir yàlla wàcce ci moom alxuraan mu tontu ginnaaw bi nga xamante ni def na ab diir yàlla xaarloo ko ba mu xam ne mbir yi nekkul ci coobareem comme ni ko ko yàlla waxee woon ne ko laysa laka min amri shay mbir yi nekkul ci sa coobare nekkul ci sa loxo waaye ci loxo yàlla la nekk moo tax loo ci bëggati wala nga ko ci séentooti di ko wax ak nit wala nga koy fasanteeg nit na nga ko delloo ci coobare yàlla wala taqulanna li cheyin inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah wadkur rabbaka ida nasit kon loolu yëpp di wane ne mbir mi du moom mais mbir mi yàlla la moo tax kon yàlla ñëw indil ko tontu yi mu tontu ko gaa yi amatuñ luñ cey teg waaye ndax ba ko tontoo tax nañu gëm ko laajuñu ko woon ngir mu wax leen li am ci mbir mi bu leen ko waxee ñu daal di ciy gisee dëgg ne kon ah li muy wax dëgg la nañ dem tuub déedéet ngir jariñu dañ doon laaj ngir piéger kooku tontu ko ak ñàkk ko tontu daanaka moo yem ci moom voilà moo tax léeg-léeg yittewoo leen jox leen benn yitte bi ci di fi nekk di yittewoo seeni mbir ak di tontonteeg ñoom ak euh, di dàggasante ak ñoom sax laay wax léeg-léeg perte de temps la xanaa li ci mënta ñàkk rek nit ki yam ci loolu daal di avancer continuer ci la nga xam ne moom la nekk ñi yàlla def ñu bëgg a jariñu dinañ jariñu bi idnillah suñu borom subhaanahu wa taala kon ñëw ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci xew-xew bi ginnaaw bi nga xam ne laaj nañ ko ko di ko jéem a testé yàlla daal di ko ciy tontu ne ko nag ndax da nga foog ne xew-xew boobu dafa nekk ci yi nga xamante ne yàlla da koy def ci ay signes yu muy jox jaam ñi pour ñu mën cee xamee seen borom xam ci màggaayu yàlla xam ci wetaayu yàlla. ndax signes yooyu yàlla jox nit ñi nga xam ne buñ ko xoolee mu delloo leen ci yàlla ndax yaakaar nga ni xew-xew boobu noonu lu rëy la ci xew-xew boobu lu lu tuuti la ci kon lan lañ war a nekk di préoccupé wu ci loolu te ñu ngi fi bàyyi yoo xam ne ñoo gën a màgg yooyu bu dee dañoo bëgg a gis màggaayu yàlla gis kéemtaanu mbiru suñu boroom nañu teg seen bët ci asamaan si nañu teg seen bët ci suuf si nañ teg seen bët ci géej gi nañ teg seen bët ci montagne yi nañ teg seen bët ci jant bi nañ teg seen bët ci weer wi nañ xool seen boppu ñoom lenn lu nekk ci loolu dinañ ci mën a gis ay kéemtaan ak ay màndarga ay tegtal yu yàlla wan jaam ñi yoo xam ne moo gën a màgg foofu xew-xew boobu mais doomu aadama ñoo bëgg yooyu doomu adama ñoo bëgg ay faits divers genre kéemtaan yu mel noonu dem nañ dugg nañ ci xuntu sàngam def nañ fa ñaari ñaari téeméeri at wuu loolu lu garaaw la loolu lu rëy la voilà nit ñi nekk ci yooyu di wax pourtant yaa ngi nekk ci loolu di wax ndax xëy na doomu aadama du dund lu tool noonu naam dëgg la waaye dund na ko kan moo ko def yàlla yàlla mi def loolu moom moo sàkk asamaan si asamaan si ne ñaret tàlleeku tiim ñu dara téyewu ko yàlla def ko defal ko ay couche yoo xamante ni bii pour rek àgg fa mënul nekk ndax ay protection ay barrières yu ñu protéger suñu diggante ak moom protection boobu noonu couche d'ozone bi nga xamante ni atmosphère bi dafay am lu koy protéger loo xamante ni même yi nga xam ne ñoom ñooy jóge ci biti nga xam ne bu duggoon si biir suñu àdduna bi indil ñu ay loraange ci yenn yi nga xamante ni dañuy wax ne ci yenn planètes yi lay fàqee ay genre xeer yoo xamante ni bi day fàqee ci ay planètes wala yu mel noonu nga xamante ni bi bu daanu woon ci suñu biir euh, planète bi indil ñu ay lorange yu bari am na ci yu bëri yu mel noonu yoo xamante ni bi dafa am benn barrière protectrice boo xamante ni moom moo koy dévier jant bi ci boppam lim ñuy sànni ci ay euh, tàngoor ak ay rayon yoo xamante ne bii mënoon nañoo lor lor suñuy yaram lor suñu wergu yaram loolu di ko atténuer di ko wàññi di ko protéger de sorte que li nga xam ne moo ci mooñ ciy jariñ rek di yokk dund di def énergie suñu planète bi loolu rek lay bàyyi mu jàll nga xam ne moom lañ ci soxla sew-sew yu mel noonu ak précision bu mel noonu loolu mënul xel mënul xalaat ne nature moo jékki-jékki organiser boppam ci benn façon bu sophistiqué bu àgg foofu defal boppam loolu yépp xamal boppam ne lii war naa koo defee nii lii war naa koo protégé fii lii war naa koo limiter ci lii lii war nature mënul def loolu nature bi mënut a mënut def organisation bu mel noonu nature mënu ko def ba tax na loolu xel fukki xel xelu doomu aadama xalaatul sax. mu nekk loo xam ne dafa jékki-jékki rek ci benn explosion bu am lii jaar fii lii lii lii lii lii organisé wu fii suñu distance suñu diggante ak jant bi benn benn déplacement benn déplacement bu ndaw ci mu gën ñoo jege wala mu gën ñoo sori bu amoon dund ci kaw suuf jeex lan moo ko kale ci ci ci ci distance bi mu yem ba xam ni fii nii fi mu toll li ñu soxla ci dund ci ci ci ci tàngoor li ñu soxla ci énergie fii la war a yem distance bi moo war a nekk suñu diggante ak moom pour loolu doy ñu rotation bi muy def moom ak weer wi ci organisation bi nga xamante ne am nañ ko ci nombre de jour yi nga xamante ne bi moom lay tourner nga xamante ne bi ci lañuy xool di mën a xam weer wi xam bis yi xam semaines yi xam heures yi amul lenn lenn luy am décalage ci loolu wala mu mu mu mu mu am benn déréglement bu ndaw a ndaw ndaw amul mais loolu yëpp doomu bu ci xoolee xam ne lii ki ko def kooku mooy boroom jaam ñi mu yàlla moo tax mu yàlla wax ne la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaasi walakin akthara nnaasi laa moon moo tax yàlla wax ñu nañu sàkk bi yàlla sàkk asamaan ak suuf moo gën a màgg fuuf sàkk bi mu sàkk doomu aadama yi waaye neen lu bari ci nit ñi xamuñu ndax li nga xamante ni moo nekk ci asamaan ak suuf yépp ci sew sew ci xereñ ci xeetu dund ak benn organisation bu fi nekk loolu doomu aadama mënu koo xam mënu koo peeg moo tax kon bu fekkee yàlla wax na ni am xasibta an asxaabal kahfi wa raqimi kaanu min ayatina ajaban loolu la ciy bàyyiloo xel doomu aadama kon xew-xew bi mi ngi noonu dinañ ci ñëw incha allahu taala def ko ay jataay nettali ko jataay par jataay jataay bu nekk ak liñ ci mën a nettali waaye li ñuy ciy taxaw di seetlu tamit mooy jàng yi nga xam ne benn bu ñu ci nettali bu nekk dinañ ko ci mën a jël benn jataay bu ñu toog bu nekk dinañ mën a wax ne xew-xew bi nii la demee loolu lii lañ ci war a jàngee lii lañ ci war a jàngee lii lañ ci war a jàngee kon ñu taxaw foofu ba beneen jataay incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam